thank you xiif nga jox ko benn tibbam ñam boo doon tabax jëndi jumaa lii ngeen def nag sunu borom dañ lay ci fay ndax li dong la yonent bi salaahu salaam bëggoon ndax daa wax ne na ngeen dimbali ay nit ñi te jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon na ngeen di sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla seen association bi yàlla na ko sama borom yokk te ful ngeen ba nga taxawal diine ji ak bi suñu borom yóbbu leen ko def kawe seen ndax amul lu dul dëkk bi képp ku fi nekkal dëkk bi ñun nga fi nekkal ndax ay doomi dëkk bi lañ fas yéene wuñ koo bàyyi fas yéene wuñ cee génn kon nag bu ngeen nekkee ci dëkk bi rek suñu xol sedd na suñu xel dal ndax gisoon leneen lu lii dana suñu xel dana dana gën a doy waar waaye soxna maam say mi fi nga xam ne moo jiitee di présidente bi lii rek lañ ko xam ci moom ndax baax ndax ñëw gis ne dëkk bi daa bokk ci ñu ko war a defal mu ñëw indi xam-xamam indi xalaatam bokk ci loolu ndax ab dëkk kenn du xeeb kenn ñëpp am xam-xam te it ku jàpp ne ni wax kenn ko war a defal rek yow ña ña ña tax dëkk bi doxul ca nga bokk moom nag daa jàpp ne fi ñaw war a defal dëkk bi ca la bokk ndax doomi dëkk bi la fi la juddoo ay wayjuram ak ci nijaayam ak ci baayam nekkoon fi mu màgg nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax yàlla leen yàlla fay yàlla na yàlla def leen te gërëmal Serigne Touba yàlla li ngeen ci bëgg yàlla leen ko yàlla ko ci bàcc Serigne Touba asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam euh, maa ngi tudd madame Diop Seynabou Guèye présidente de l' association pour le développement du Baol euh, association bi nag biñ ko taxawalee yàggul bii mooy première édition ñi tànn bis bii di bisu laylatul xadri pour man cee def ay bernde yóbbu si daara yi yóbbu si hôpitaux yi yóbbu ci prison yeeg yëpp seeti malade yeeg yëpp wan na leen ñoom tamit ci bés bi lañ bokk. ñu ngi ci ànd ak euh, fondation aide bu Bamba Diop di ko remercier bu baax moom tamit ndax lim ci def ñëpp gis nañ ko bàyyiwul dara lépp lu ñuy def ci fondation bi rek lépp lum ci am ci lu baax rek indil nañu ko ñun association bi ñu ngi koy remercier bu baax. di remercier suñu yeneen partenaires yoo xam ne ñoom tamit ñoo jàpp ci liggéey bi ci jël seen alal def ci ba pare ak seen conseil ku mel ne Amar Industrie bu nga yërë nga jóg ci wàllu affaire mu ak loolu lépp lay def tamit moom it jàpp na ci jël koppar yi bëri jox ñu accompagner na ci ci yeneen denrée te du nee na loxoom du jóg ci duñu du ñu jàppale parce que doomu Bawol la association bi nag li ko tax a jóg pour jàppalante dimbalante ci vole yëpp côté social côté santé côté bu nekk rek ci jeunes yi lépp lu ñuy def ñi mën cee jàpp biñ ko taxawlee serte yàggul mais pour dimbalante ak jàppalante xam na na jamono dafa metti mais ku nekk bu yoree dërëmam keneen yore ñi boole ñun ñëpp mën nañoo dimbale ku feebar mën nañoo dimbale ku xiif mën nañoo dimbale ku soxla leneen. bisu laylatu xadra da di bu rëy boo xam ne mënuñ ko woon a weesu ñu ne nañ fi def première édition te ñaan nañ yàlla mu bañ a yem fii parce que association bi dafa rëy bawal bi yëpp lañ wax kun wax ne bawal wax Jurbel Bambey Touba ak Mbacké te ñoom ñëpp dañ see bokk te dañuy ñaan yàlla ñu délocaliser ko bu déwénee ñu yokk ko dem Jurbel wala ñu dem Bambey wala ñu dem Touba parce que ñoom ñëpp ci bokk. kaddu cant yi di gërëm euh, suñu xalif général di ko ñaanal sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg tey wër di ñaanal waa église bi tamit parce que association bi ñëpp a ngi ci biir chrétien yeeg ñëpp a ngi ci biir. di ñaanal xalif général des Tidjane tamit parce que Tidjane yaa ngi fi xaadir yaa ngi fi laayeen ñëpp a ngi ci biir ñu ngi leen di ñaanal bu baax bi ñu ginnaaw loolu tamit ñi ñuy sant suñu waajur yi ñu leen di ñaanal. yàlla bàyyi leen sunu kanam parce que tey jii lii lépp buñ ko mënee ñoom tamit dañ cee am seen wàll. journée bi tey maire yi ñoo fi nekk sunu papa yi sunu yaay yi ñëpp ñu ngi jàpp ci association bi pour bu mu jëm kanam parce que ne ku nekk mënoon nga toog sa côté bañ a def benn geste mais buñ dëkk bu xale yi jógee def lii maire yi nekk sunu ginnaaw paa yi nekk sunu ginnaaw ñun tamit dañuy am benn kóolute boo xam ne ci lu ñuy def parce tamit. Euh, bu fekkee ne nit day def dara am ku mu wéeru ñun dañuy dolli courage te ñaan nañ yàlla association bi muy dem fu ñu koy dégg fu ne ci barke Seydina Mohamed. Euh, waa association bi surtout les membres di bureau ci commencé ci vice président wërsëg ak euh, Sidiya su ma joxee ñoom ñaar ñëpp rek waaj wax naa ñëpp di gërëm organisation mention spéciale organisation dama leen sant di leen gërëm di gërëm tamit monsieur Diop moom. mention spéciale ndax moom it su ma bàyyiwul woon te xam na ne man ci social rek laay yëngu kon du ma mën a def lii yëpp réalisation bu ma tere woon it dinaa toog mais sama xol xam na ne ci social la nekk man ku ma xam xam na ne yaay Fall laa ci fépp fa may liggéey ak fépp man joxe lekk moo may bégal dimbali nit moo may bégal yàlla na ma ci yàlla di kàttanal nag te lépp lu luñ ci am rek yàlla nañ ko bokk ak doomu aadama yi. ci naa mu Mohamed di gërëm sama amazon yii nag ci suba ba léegi vraiment ñoom it naaj bi tàng na loolu gars yi dañuy daw dugg ci clim bi waaye ñoom ci mbedd mi la ñuy nekk ñoo togg mbaxalam puuj paaj mu saf waaw macha allah jërëjëf